Euh, Moustapha Ba mii ngeen di gis nii mooy ministre des finances saf na sàpp nag tey ci journaux yi dégg nee na Sénégal mu ngi ci bon santé financière dégg nga ju baax nee nañ budget bi day desaat ci sept mille et quelques milliards dégg pour deux mille vingt quatre jërëjëf direct news ñu dem. ah Soleil tam loolu la wax nee nañ bi yoon 3,6 milliards mooy yokk ci mbir mi xam nga 2023 7000 milliards la ñu dundee dañuy dem ba 7000 3,6 milliards ca 2024 projet yi si nekk yëpp nag ñu war ko financer mu ngi si Soleil yu tey dégg bu yàgg ba ba daan wax journal ak nu mu munti tudd soleil nga koy wax yow jox ma soleil bi dëgg dëgg kon soleil yàgg na de acca <laughs> ñoo ngi nuyu grand yaa xam ñu dem l'info nee na cancer gi bu ñu la waxee ñi ko am mais cancer mu ngi fiy def ay ravages xoola ñaare yenn dee yu bette yëpp ah muy ay xale yu ndaw lu si gën a bëri cancer la xoolal mu ngi toj dëkk bi de suñu jigéen ñi nag mu ngi leen di jeexal déggoo ma de non pap vraiment li métti naa ah. aca ñu dem Euh, Pape Rumble... aussi constat sur les dossiers chauds Acha? c'est que Pape T'as eu titre de Rumble, rumble... <laughs> Pape ubbi tey à géométrie variable Pape <laughs> tey ci un yéene kaay il faut nga nekk ndaanaan dëgg pour titre yi acca <laughs> ñu dem mu ne forom civil peint un tableau sombre ah waaw d'accord léegi ñi groupe parlementaire yeew yi ñu ne une scission qui peut coûter cher ah yéene bii de révélation wax na lii il y a vingt jours ne groupe parlementaire bi day tass dañuy dàq député yu bok ci Khalifa Sall waxuñu ko wala wax nañ ko euh acca rombal le populaire néna nak. nag courant bi xam nga wax nañ ko fi dem comme comme ñun mu ñuy bëgg a rey yéen bi nee na gars yi nag léegi lancé nañ ah benn pétition xam nga pétition waaw contre la Sénélec ndax ñu ngi ñuy rey seen directeur général bi ah. bañ a signé waa ji waa ji bañ ko interroger ci courant bu cher bi ay waxu picc la wax Pape Demba Biti gars yi ne ko courant bi dafa yokku mu ne tàngaay wee tax na gars yi nag waxuñu dañoo yokk seen consommation de courant mooy yokk dama ne courant bu doon jar cent franc jaratul cent franc cent vingt cinq lay jar loolu la gars yi wax nga naan tàngaay bi chaque année na ngeen yokk seen consommation kan moo wax loolu loo consommé ngay fay ñun dañoo ne la ñuy consommé dëgg-dëgg tàngaay dëgg la yokku na mais au lieu ngeen jaay ko cent franc cent vingt cinq ngeen ñu koy jaay waaw prix yooyu yokku ndax xaalis yi ngeen di fooye ci politique bi ñun ñoo koy fay Pape démb 23h dama romb gendarmerie nationale dañoo am benn bâtiment bu bees bu làngoog autoroute bi Pape mot na quatre étages Pape bureau yi ma gis yëpp làmp yi di tàkk li ma gis mot na cent vingt bureau Pape xoolal man du ma waxantu de cent vingt bureau ñëpp lamp yi di tàkk. 23 heures Quand nga ma posé une bonne question mais qui paye l'électricité de la gendarmerie Hein mais kenn nekku fa loolu laa bëgg wax 23 heures xam nga man genre yu mel noonu laay jëlee xibaar yaa ngi dégg après di ko gëstu moo tax su ma information nit du si teg alalu Macky Sall maa ko génnee Pape alalu Macky Sall mi ñuy wax nii maa ko le 3 mai 2012 dégg parce que man damay gëstu Pape Pape 23 heures plus de 120 bureaux képp kuy jaar autoroute gis nga loolu la dama dama fàtte tur bi foog naa lan justice militaire bi la lu toll 120 bureaux 4 étages lampe yëpp di tàkk ma ki paye l'électricité de la gendarmerie Hein? est-ce que clim yi fay lampe ya nu ñuy non. est-ce que clim ya fay na mais bu dee gendarmerie du fay courant xanaa xamoo ni kon ñun ñooy fay courant ba képp ku fi toog fayoo xamal ni la nga waroon fay askan wi moo koy fay kon courant munoon na jar 75 mais 125, lay jar parce que yenn institution yi du fay courant Pape man RMD bama nek nekk bok ville de Dakar chaque jour damuy xulo da ngay gis xoolal ku tal clim ñibi building communal tal lampe tal tal clim ñibi né suma ñëwé suba dama bëgg fekk mu sédd en ah, papa nga gis journée bi yëpp ko ko taal même booy dem añi tëj bureau bi doo ko fay waaye ma ne Pape loolu man maa koy dund building communal man maa koy dund man waaye ma ne Pape nu ma la wax nii man maa koy dund loolu du lu ma nit nettali parce que nit ñi dañoo jàpp ni ville de Dakar mooy fay courant ñoom génnu seen poos alors que ku dem sa kër làmp bu tàqee sa douche bi sax ngay rey sa bopp ah pap waaw man mii loolu laay xuloo chaque jour man leen man fekkee yéen da ngeen di yéen da ngeen di enrichir Senelec man jóguma pour enrichir Senelec voilà loolu laay wax sama doom yi ak sama waa kër yi ah pap mais par Senelec a rey Senelec Senelec Pape Demba Bitèye yow ak ñi nga àndal ak waa Sénélec yéen ak ñuy rey te kaay ma kaay ma yokkal la si Pape loo xamul ma révélé la ko tey